tu sais il faut aussi qu'on soit assez prudent c'est-à-dire mm. ceux qui la mer la gis nga xam nga lu ñuy dégg c'est pas même que dañuy dégg lu ñuy gis ci suñu dëkk mooy que da ku dem France wala Italie wala Japon toog fa cinq ans ñëw tabax mm-hmm. takk jabar am oto takk ah jabar takk jabar mm-hmm. di di financer politicien bi merci mais kooku naka nga mën a construire son imaginaire pour lui dire gëmloo ko ne que waroo dem non non c'est pas possible tu deviens son adversaire mm-hmm. état bi c'est ça que l'état n'arrive pas a comprendre l'état devient un danger pour sa propre jeunesse c'est ça mm-hmm. c'est ça mm-hmm. et, au pire les jeunes la ni ñuy comprendre mooy que état africain yi état européen dañ leen utiliser pour neexal leen xaalis on mhm. on est pris dans ce piège la il faut que euh, ñu toog donc avec les pays européens qu'on discute de l'immigration africaine parce que pourquoi euh, ma lay wax immigration africaine mais pourtant chinois yi ñu ngi immigré russes yi ñu ngi mhm. mhm. ah, mais y les Africains qui souffrent de de cette manière là. vraiment y a des images yoo bu ñu la ko wane. mais y a que des Africains on les traite comme. à commencer par la Tunisie le Maroc ah etc oui, etc il donc la question pourquoi elle est politique parce que c'est c'est racial c'est économique c'est culturel c'est religieux mais nos États sont incapables d'avoir une politique en matière en matière d'immigration mm -hmm. c'est c'est difficile à accepter c'est ce qu'il faudrait faire su ma la déggee mooy que ne qu'on essaie de voir avec les pays occidentaux mais l'Union africaine à quoi elle sert quand que ñu nangoo pourquoi l'Union africaine ne peut pas avoir une politique d'immigration au lieu qu'on nous dise que la France nous dit je fais une immigration choisie mm -hmm. je prends la crème chez vous là si vous voulez venir vous pouvez venir Comme mais la misère du monde là euh, pas pas en Europe mm mais ça nous l'acceptons nous tous alors que ça, ça c'est le travail du ça c'est côté ñun ak euh, les Européens mhm. mais chez nous mhm. gis nga la la question elle est mal posée euh, euh je crois que Djibi Diakhaté l'a l'a évoqué c'est-à-dire que on on a monétarisé mm -hmm. les rapports humains Wallahi. mais ça qui ose ne pas voir ça mm-hmm. ñëpp c'est-à-dire que da ngay jàng da jàng ba pare am sa maîtrise am sa master am sa doctorat mais si tu n'as pas de salaire tu, tu, tu es un moins que rien mm-hmm. Mm-hmm. l'immigré qui vient mm-hmm. même pour quatre jours mm-hmm. il te parle même pas il t'écrase fait de société bah, fait de société parce qu'on a monétarisé notre société est devenue monétaire c'est l'argent qu'on a mis en avant c'est la ah valeur suprême loolu dëgg la mais doy est-ce que gis nga yenn immigré yi lan moo tax parfois ñuy nekk Europe wala bitim réew lu yàgg ay at du ñu ñëw xam ndax lan amuñu sérité bu ñu indaale am na passé mais amuñu sérité bu ñu indaale parce que boo yegsee diw de ñëw na démb. waa koñ bépp ay bàbbeeku ku nekk day ñëw seet si la moom de ba ma ko seetee 1000 francs la ma may. moom de ba ma ko seetee moom de ba ma ko seetee ab t la ma may. vous vous rendez compte léegi yow da nga demoon wuti mais boo ñëwee communauté bi yëpp ku ci nekk da nga war a cër. léegi finalement tu te dis que jarul may def parce que lu ma leen jox. oui euh, bu am naa même pour terminer rombal fii nii ñuy ñaane visa doyen boo fi rombé. fii à Wakam da ngay romb mais sa yaram day daw da naan mais Sénégal kon apparemment kenn bëggatu fi toog mais buuxante boo xam te ay nit yoo xam chaque jour c'est rempli noir de monde. Hmm. ba waaye ça ça loolu laa la problème de société. cest à ñun nu ñuy nu ñuy xoole immigration il faut ñu toog di waxtaan. ñu xam lan mooy immigration lan la ñu indil. pourtant lan na ñu perte pourtant théâtre kat yi yee ñu ngi ñuy doon yee de ay ñoom. Ibrahima oui mais def nañu fi lu ne euh, mais terewul ba léegi c' est ancré. non pas euh, tu tu vois pas moi j'ai des, des amis portugais. Mm portugais mais euh, c' est leur immigration elle est réfléchie organisée. Mm -hmm. ils les secteurs. Mm soo demee en en Europe. ça ils sont maçons ils sont mm-hmm. mm-hmm. à tel point que il n'y a pas un pays qui peut rejeter l'immigration euh, euh, portugaise mm-hmm. il n'y facilement parce que parce qu'ils ont un métier parce que ils ce ont que le mais nous notre immigration elle doit être formée Malheureusement, nos jeunes ne sont pas formés. Bah, bah, eh ils sont pas... On ne se soucie en, même en, pas. La question d'eux. On se soucie même pas de l'éducation revient. De l'école sénégalaise, ça revient. Hein. Euh, mais, mais, si on était fermé, si Par exemple, euh, regarde rek génération en génération benn ban étudiant nga ñemee wax yow vacances yi kaay liggéey fii nga def petit job. duñ nga def plonge nga def restauration nga def euh, maçonnerie nga def euh, dans les travaux euh, pavage et cetera c'est un si problème le, culturel mais si l'étudiant le fait un an deux ans quand il va trouver un métier progressivement mm -hmm. il va s'intégrer mais ñun bah c'est malheureux à dire que dañu suufal liggéey oui